envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. maintenant. ca jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221. di nuyuwaat kilifa diine kilifa day di ñaanaat réew mi di Sénégal yàlla suñu borom doole jàmm. comme ni ñu leen ko waxee à chaque fois rek lépp loo xam ne information la people 221 da koy toppal. waaye ala rawatina loo xam ne nag information la yoo xamante nii moom à l'instant tàng tàngooy bi ñëpp a ngi doon wër jimboo waaye na ñun dañuy xaar ba mbir mi féete fu leer donte lépp leeragul waaye nag du ñàkk ñu jàngat ci def benn waxtaan ji maa ngi nuyu sama waa ji. guy gi maa lay fay euh, di nuyu téléspectateur people 221 yëpp di la ñaanal yow sama xarit nga. na nit ñi xam loolu quoi. waaw ah, wax dëgg yàlla man a yow duñ ñaar daal. benn mais yal na yàlla sàmm la barke yonent yàlla Muhammad. nuyu sama grand Abdou Aziz Sila kamara mbay aw Mbuub sama jigéen ñooñu nga xam ni dañoo mën a sonn si man. Mhm. may jàmmee xam nga alimatu korea bàyyiwuma kenn soxna may jaxate jigéen ñooñu sama jigéen ñi xam nga caat. waaw Aysatu maa ngi koy nuyu du nuyu ñëpp daal. d'accord waaw Abdou Kool Séeri Marème Diak suma xarit boobu. moom tam maa ngi koy nuyu di nuyu sama mbokk Gambien yëpp. d'accord fi ma ñëwee. Ah. muy décès Aziz Dabala ak ki nga xam ne mm-hmm. mooy waale yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen. Mm-hmm. Euh, euh, bi nga ko yëgee par rapport ak yenn tet yi nga xam ne dégg nga leen ci ku ci mel ni mm-hmm. Nabou Leye surtout. ndax amoo ci mbeteel par rapport ak sénégalais yëpp ni ci amee mbetteel donte leeru ñu ni moo def wala deful. waaw no am naa ci mbeteel kay. dama si am mbetteel bu rëy ah. wax dëgg yàlla parce que guy gi xam nga mbetteel ban laa si am. Mhm. suñ ma waxoon waxuma ni ñoom ñoo def mais suñ ma waxoon ko xam ni mook Aziz Dabala ana yow ana man boobu du metti si man mais ñiñ ma won damaa xam ni ñooñu dem nañ kër ñoom Aziz Dabala est-ce que ku dem kër ñoom Aziz Dabala gis situation bi fa nekk gis maire bi. gis kër gi est ce que kooku war na mën a jël bakkanu Aziz Dabala. ba pare lu ma ci gën a naqari mooy nga jël bakkanam ba pare. jiiñ ko leneen. lu noonu. leneen waaw. parce que léegi pour man pour man Aziz dara warul tax nit nekk ci lu mu warta nekk. mais ndekete Aziz li mu doon daw gauche droite yëpp bi ngeen demee gis ngeen ko. ba pare xoola est-ce que xam nga képp ku dem ci dëj bi danga wéet dëj bi dafa wéet. tax. Hmm? lu ki ñu war a jaale moo fa newut. Mm-hmm. waaw xam nga dëj bi dafa wéet. waaw waaw. demal si artistes yi bu ñu demee du ñu xam sax lu ñuy wax frère Aziz. Mm-hmm. frère Aziz duñu xam lu mu leen wax bépp artiste bu fi mos a génn sa moroomu artiste la ñuy jaale sa xarit. mais Aziz Dabala dafa génn àdduna si situation bu metti xam nga ban situation moo ci mett nga génn àdduna ba pare amuñu kuñ jaale. Mm-hmm. Aziz ba tey jaale wuñ ko de xamoo loolu. Mm-hmm. Showbiz jaale wuñu Aziz. Mm-hmm. parce que Nabou Leye bi ñu waroon jaale newu fa. kan ngay jaale. dëgg la ku ne Aziz ne Nabou. non dafa dem yóbbaale xaritam yóbbaale jigéenam. ndeysaan. xam nga liñ naan bu tëgg demee yóbbaale mbaar yóbbaale upp yi Aziz dafa dem yóbbaale mbaar yóbbaale upp yi dafa yóbbaale xaritam mooy waali yóbbaale jigéenam léegi boo boo demee kër ñoom Aziz koy jaale. waxal ba xam ñi fa ñëwoon ñëpp xoola dañoo am problème mu sax nu ñuy jaalee. Mhm. parce que bu fekkee bu dee showbiz la wax de. xam nga man man mii tey su ma fi joge woon lu mu dee dee di nga am ko xam ne daanaa ànd ak moom ci soo biir di ko jaale mais léegi Aziz daf fi joge kan la doon àndal ku koo mën a dem jaale ko kan la. léegi ñëpp dañoo àndandoo di jaale jaale bi dañ doon jaale ku ñu xamut mooy mère bi suñu yaay la rakk ji suñu rakk la mhm. mag ji suñu mag la léegi kan ngay jaale. Mhm. c'est wax dëgg yàlla du ñu wax ni nabu fu dugg palaasam la mais nag mag nabu dafa am fuñ ko doon séentu foo xam ne nii yaa ngi dégg foofooy palaasam bi mu fa toogul gisoo kenn mënu faa toog ba pare xoola ket bi ket biñ def nii ndimbal liñ def nii su fekkoon nabu lay mi ngi fi ket bi mun naa bañ am. parce que li muy am mun na doubler parce que rukk rukkaan yi ñu daan ànd moom moo ko xam. te moom ñëwut. ñëwul. Mhm. tey jii suñ la doon wax fo Aziz Dabala dem na demal indil ñu photocopie am kan ngay indi. Naboulaye Naboulaye léegi photocopie Aziz Dabala léegi dañ ko tëj dañ ko tëj dañ ko tëj si boyet ba pare jël kànnaar bu dëgër caabi ja réer moo tax ñun ñëpp ba tey gisuñu ko gisoo ko gisuma ko. Mhm. nabu bu ñëwoon moo doon gën a rafet. mais lii na ci sénégalais yëpp jàngee pour ëllëg. ba pare na ci sénégalais yëpp jël farlu ak matuwaay pour ëllëg gis nga lii nii est-ce que xam nga ñun dañuy dimbaliwuñu justice ñun. parce que boolente bi ci war ak kenn ku si nekk fi nga war a téye sa morom. pour justice war leen fa mun fekk. defoo ko ba pare xam nga tey fële nee nañu waaw fi nekkoon foofu baaxul dafa dangereux mhm. foofu dangereux de mhm. police mën na surveiller ku nekk ba mu des ay xarit tey jii yow mii boo mu naroon fexeel ku ci mun dara mhm. waxuma ni moo ko fexeel mais sa xarit génn àdduna bu la police wooyee yii defe naa ni yii la la war a laaj ndax mus nga xam ku mu joteel nga ni waaw wala nga ni déedéet ndax mus na laa wax keneen ko xam ne xeex naa moom nga ni waaw wala déedéet mais la fait que ñu woola rek di xool ba xam laale nga ci nga xam ko ak xamoo ko guy gi pour man daal gàcce la. loolu moom gàcce la. d'accord mais et puis nag dinaa lancer waale benn appel. Hmm. gis nga ay nit bu ñuy ànd. Hmm. ànd yi Dabala ak Nabou Leye hmm. duñu xale nag mais. segam seen parents yaa ngi dund àndu xale la woon. àndi xale nag mag ñaa cay topp lu wadd ñu for teg ca kaw suñ leen doon bëri luñ leen di surveiller mun nañ leen a aar ci lu bari xanaa am loo ah, xale buy dem da ngay dégg ñu naan feccum liir bu neexee nday jaa téye ca mbak wakk ya xoola mm-hmm. yow mii sax booy dem nii si li ngay def nii te amul mag yu la accompagner guy gi mun nga dugg ci problème parce que sa xel kese doyut mm-hmm. loo dugg rek am na ku la ci jiitu mooy sa maître. d'accord mais loolu la daal bu ñu xoolee ñoom ñaar euh, ni ñu mel parce que man Nabou lay jël naa ko interview yi mais interview yi ma mës a seetaan yëpp su waxee benn ñaar ñett ñetteel ba danaan maa ngi nuyu maa ngi gërëm sama papa Aziz Dabala nga xam ne lépp lu ma am ci aar grace à lui donc tey. donte kenn xamagul ah parce que fekk euh, tey juge bi waxuñu ñun ñu dégg. Mhm. mu génnee PV ñun ñu dégg donc xamagul dañuy wax rek suñu xalaat. <coughs> waaw tey ndax jàpp nga ni foofu noonu lu lu xaw a ñaaw war na faa am ba yu demee nii di ci dugg. waa xam nga tey ah, guy gi ma wax la ko guy gi bu fekkoon olof dafa am ku koy xeexal. ak di ko protéger. kooku war naa commencé génn nii. Mhm. xam nga lan moo tax mu war a génn parce que da yi xamuñu luy xaritoo. ànd di def suñu liggéey ak ànd xaritoo ak ànd li nga bëgg ak li ma bëgg du benn de. Hmm. mun nañ def dix huit ans si loo xam ne ñun ñaar duñ nekk xarit. Hmm. léegi est ce que Nabou Leye xaritu Aziz la woon est ce que Aziz xaritu Nabou Leye la yaa ngi dégg mais tamit fu mu toll nii boo jëlee position Aziz xaritu Nabou Leye la. te tamit Aziz Abdou Aziz ku yéene woon Nabou Leye la xam nga lu tax. Hmm. Nabou dafa am lu mu ëppale Aziz te Aziz nekk patron parce que nabu mi ngi doon dawal Aziz dawalul. te ñu bëri boo nekkee ci ñoom commencé dawal bu contrat amatee dootuñu la woo. am na wala amut. ba pare nangu loon na ko am-am bi. ba pare nabu commencé woon na bokk ci ci société bi te yëgu ko parce que boo demee bay téye natt di ko teggil ay nit ñuy tekki di jëriñ dara. Mm-hmm. defe naa ni yow àddina leneen waru laa ñor lu dul luy jëriñ nit. dëgg la dëgg yàlla. Mm-hmm. nabu su ma dendoon ak moom balaa lii. Mm-hmm. yaa ngi dégg fekk nag mu déggal ma. defe naa waxuma ni moo def de mais woo rek duñ ko ko def parce que dina tooge neneen nu dul nii dina tooge feneen yu dul yii aussi tamit mais dama si bëgg a lancer waale appel nii ku amati sa doom parce que Nabou Leye jar na yërëm nag si côté ah, wax dëgg yàlla Aziz tamit jar na yërëm mhm. xam nga Nabou dafa nettali ci benn interview xaw ma yow yaa ko jël xaw ma mu ne moom bi mu amee quinze ans si la am doom si situation bu metti léegi ndax doomam moom day am 15 ans am si am problème mu gis yaayam. waaw waaw surtout parce que gis nga doom ji bi ñu gisee. comprendre nga lim la boo xoolee doom ji daanaka. gars yi jël nañ ko dugal ko ci ñu ngi taf ay photo am ñu ngi commencé di ko wax en tant que xale est ce que loolu noonu après mënut a dem ba jouer ci côté mental. déggoo ma xoolal ñun ñi yaakaar ni ñoo gën ñoo ko gën nday yëpp. du dëgg. Mhm. xam nga boo yaakaaree ni yaa ko gën yaay. sa yaay ju baax jooju. xam nga gëna lu ko ndayam ji nga yaakaar ni daa bon. moom ni mu toll la xeexalee yaayam parce que xale la. du dëgg parce que lupp nday lu mu lax-lax si la doom di toog gars yi lan lañ bëgg moom mu bàyyi yaayam daal ñëpp di xas yaayam moom muy xas yaayam du xas yaayam. bu doon man la man sama yaay rey quatre-vingt-dix-neuf mill nit sama yaay ma gënal. wax am na wala amut waxuma ne yaayam moo def mhm. mais munul toog adduna bi yëpp di ŋawti ŋawtee yaayam muy ŋawti ŋawtee yaayam moom la am mhm. lupp nday lu mu lax-lax si la doom di toog mhm. ba pare xale bi yoonam newu ci mais dafa am laayfeur yoo xam ne dañuy laayf ba amatuñ lu ñu laayf ñu jël xale yi xoola am na benn woli bu mag pourtant papaam agresseur la woon du ma tudd tur du dëgg léegi pour pourquoi ñoom ñu bëgg a jël xale bi dugal ko fan fan lañ koy dugal. nii doo ko dugal ci mbon doo ko dugal ci mbaax. baal jàmbur man loolu laa xam quoi xale bu ndaw la yoonam newu ci bokkul ci showbiz amul kenn ku xam ne danga nga ko bëgg bonal di ko bonal xam nga képp koo gis mu song xale bi bëgg koo bonal noonu nabu lay la woon balaa lii. nit ki nag sooy wax da ngay wax te yàlla tax. mais sa wax bu ci dugal nooneel. Mhm. mais ku noonuwul nabu lay di nga ci génnee xale bi te wax ak nabu nabu nag ku ñëpp tifli da ngay tooy te ku la sang dootoo set mukk kenn amul kenn ku mun a taxaw nii défendre nabu lay. Mhm. xanaa yàlla du dëgg ak boppam. Mhm. mais nabu problème bi ma ko meree leen lenn kese la biñ ko laajee si première laaj munoon na libéré gars yi xanaa am loo ba tey Aziz tëddul. boo nekkee sa xarit ba ñax sax si kawam nëbbu weesu na weeral lépp teg ko ci taabal ji mu jeex. xoola mhm. police xoola police boo ko tegee ci taabal ji dinañ xam ne teg nga ko ci taabal ji boo ko ci tegul dañ naan la teg ko ci. Mhm. nabu noon na teg affaire bi ci taabal ji mu jeex. Mhm. bu doon man la mais nag xam nga tey moom xamul ne ku dee da ngaa war a weeru. guy gi luñ la nëbbal nëbbal boo dee weeru. moom mooy ki nga xam ne nii moo am lu bëri ci Aziz Dabala lu mun a wax gisoo ñuy wax nii yëpp dañuy làmbaatu ñii di jooy ci dëj beeg ñii di far am na ñoo xam ne nii sax bañ gëjee gis Aziz yàgg na bu dëgg est-ce que amuñu woon ak moom problème di ko nëbb sax yaa ngi dégg mais moom na bu lay xam nga talaata la ak àllarba ñoom ñaar kenn ku nekk yaa mën a wax sa morom comme kee mënatul wax ma nga tëdd nabu ngir yàlla ak yonent bi na libeere xaritam parce que ci diiri trois mois waali wan na wan na wan na ne ko sa xarit la parce que fi bakka ñu doon jël bakkanu Aziz bakkanu waali taxu leen woon jóg du dëgg kon bu ca waali demee xarit moo ko yóbbaale nabu nag segam waalee ca nangoo dee waa nabu nag waali mi def trois mois nangu caa dee yow mi def 18 ans yow léegi looy xaar. Mhm. doo simmeeku na ci lay. daxar mhm. rek d' accord mais ñu gis euh, ñu dégg ci yeneen version parce que affaire bi bi mu amee yaa ngi gis yenn live kat yi ñu ngi jël commencé di wax naan da euh, euh, Aziz daa nekkoon ci lii Aziz daa nekkoon ci lee tey bu ñu waxtaanee en tant que tey ku génn àdduna. Mhm. yal na leen yàlla yërëm ndax tey yenn kaddu yi jaadu na wala rafet na ñu koy taf parce que boo xoolee ba Aziz deewee ba tey. waxkat yeeg live kat yeeg ñëpp bu ñu xëyee moom la ñuy taf. waaw mais xam nga tey dinaa la wax euh, benn affaire xam nga tey justice su Sénégal ni mu tëddee ak yeneen justice su Europe. nekkul benn. xam nga justice su Europe boo amee problème dañuy génn ni diw mii kat problème mu nangam la am. fii nag dañuy suturaal ba tey. parce que lool loolu suñu suñu aada mhm. mais tey fii buñ doon génn ni lii moo xew. ñiy live ñoom aadama ak yooyu yëpp duñ kenn du leen seetaan nit ñi leen seetaan dañ kumpale mais nekkul ñoom la ñuy seetaan. Mhm. wax dëgg yàlla parce que waxu duñ fa wax lu ajum ngoom waxu waxu dof la ñuy wax. Mhm. wax dëgg yàlla mais nag gis nga kii euh, naka la tuddati euh, guy gi. xam nga wàllum Aziz liñ koy jiiñ noonu damay dàq loolu loolu dàq naa ko laa wax. Mhm. xam lu tax ma koy dàq. xam nga tay jii nii Aziz ray ñu ko ci loolu fekk ñu ko muy def loolu ñu ray ko ci. Hmm. dañ ko fekk mu jàpp njàmbaram ñu ray ko ci kon ci ni rayin bi la ñuy wax ñun. Hmm. surtout. xam nga tey buñ ne woon diw mii kat atelier menuisier ba lañ ko fekk. Hmm. muy jël bant ñu ray ko ci bant yi du dëgg. mais këram lañ ko fekk muy nelaw ñu ray ko kon demul atelier menuisier ba ñu ray ko fa du ma mën a wax ci wàllum naan borom ñaari tur li ñuy wax mooy dañ koy fekk ci kii ray ko ci ba pare Aziz Dabala bi mu toogee këram nit a ko fa jël si bi ko nit jël see guy gi ma wax la loo xam ne kenn waxu ko bi ñu demee ci cant ga ñi ko doon yuuxu borom ñaari tur ndax gaa yi yi mu xeexal ñi mu xeexal ñi mu xeexal ndax ca koñ ba lañ dëkk wala dañoo ñëw dolliku ci mbooloo mi di ko wax loolu. Mm-hmm. yaakaar naa ni ñooñu danoo ku ci mbooloo mi di ko wax loolu. Mm-hmm. kon ñooñu dañoo ñëw ba ci biir mbooloo mi provoqué ko loolu. Mm-hmm. xool ma bu doon dafa jóge këram ñëw directement ñooñu bi Aziz di ñëw wax nañ leen Aziz mi ngi fiy ñëw kon buñ ko doon yuuxu loolu duñu nangu mu ñëw fi. du dëgg mais ñi ñëw dolli ci di ko yuuxu loolu guy gi ñooñu laa bëgg nga xool pal lañ jóge ñooñu doon ko yuuxu loolu ñoom ñoo ànd ak moom dem këram kon kon ñoom pour ñoom pexe nañ loolu ba pare bëggoon ko jaxaseek askan bi ci loolu pour bu bu ñu defee lee du am effet. Mm-hmm. damay dàq loolu mu dem même dajj bi dajj néeg bi est-ce que xam nga dajj bu amoon constitution constitution dajj dafa aaye ku dajj néeg bi. ci dajjin bi xam nga loolu nga loolu. dañ ni gel bi dafa ñëw woo Aziz jotu ko mu ne nañ dajj. wala du noonu. léegi boo woowee Aziz jotoo ko ndax doo woowaali boo ko jotul constitution dajj doog laa jox nga dajj woo Aziz jotoo ko rek nga ne nañ dajj kon kay xam nga ni waali dundut. Mhm. foofu day dàqu ah. man pour man daaj ji waru faama am na wala amut du dëgg boobu moom dama ko bañ wax dëgg yàlla dama bañ loolu am na ku si génn nag naan benn seetkat naan mun naa yaakaar ni daa tukki ñoom ñaar kenn munu cee tukki te sa moroom du ko yëg dëgg parce que ñoo bokk lépp mhm. comprendre nga li mais foofu daal wax dëgg yàlla lii man am naa ci ay lënt-lënt daal wax dëgg yàlla. waaw ba pare xam nga moom bi muy génn mu ngi ci loxo soppeem. mais bi muy duggaat këram ci loxo noonam la nekk. parce que boo koy seet. keroog Seydina Ousseynou bi muy jóge Màkka di dem Irak si ay loxo soppeem la nekk mais bi mu agsee Irak dafa nekk ci ay loxo noonam gis nga Aziz Dabala bi muy génn këram mu ngi ci loxo soppeem mais bi muy duggaat ci biir kër guy gi bi muy duggaat ci biir këram ci loxo ñan la nekk. ay ci loxo ay noonam kon lu ne xañ na fa. d'accord du dëgg. appartement yi tamit nañ ko seetaat. bu baax foofu laay ñëw ah. parce que parce que li ñu def yàllaa ko xam mais Jimbori bu ñu génnee ci Aziz Dabala damay gis ni Sénégal boo xoolee daanaka. li ñu enregistré ci ay crime ci semaine bii nii ñu génn depuis Aziz Dabala ba tey xaw na doy waar ci réew moo xamante nii tey koor boo ko daan dégg rek néew boo ko daan dégg ren bala nga kaa déggaat déwén bu ñu demee ba toll foofu noonu tey en tant que yow ko chroniqueur ban jàngat ngay def. xam nga guy gi. Mhm. fii ñu toll nii xoola ba képp kuy parent xam nga ni fa fa boo tay tayluwul. Mhm. xam nga loolu est-ce waaw. parce que tey ñaata nit nga gis ñu nekk ci tiktok bi di feec fecc bii. waaw gulu gulu gulu fecc badara bi. ah voilà fecc badara gajaga bi waaw gulu gulu gulu gulu léegi ñaata nit ñoo ko challenge. bari na de naan xamoo ni fii si ray lañ toll parce que lii signe la signe. ni ñu demee bay xàmmee. ay lii ay toj sa mbaar yi. waaw boo xoolee léegi daanaka da ngay wax baal ma ñëw. xale yi léegi daanaka nit ñi ne ci TikTok bi ñoo leen ak. woykat yi loo toj sa mbaar yi ak bii. gulugul ak nit ray sa vudi. waaw ak nit ray dèjà sax barki démb la ñu bari xam ni man man dèjà man ci laa xam ni vudi ndekete mooy sàngara wax jooju noonu sàngara la si. waaw kay mais ba pare ma ni ak ak ak. nit jógee kaso ray nit ñu bëri ñu koy jël interview di ko invité ci télé yi def ko star mm-hmm. xamoo ni réew mi foofu la toll. xoola mhm. réew boo bëggee xam nu muy demee da ngay xool lu mu gën a bërile ba pare xale yi jàngatuñ métier defatuñ dara. éducation bi moo xaw a manqué guy gi. Mhm. fii ñu toll nii bettul kenn te xoola ma wax la dara. Mhm. del xool day yokku de. Hmm. day yokku guy gi bu ñu bëggee lii dañ xam nga lan la ñuy def dem xooli appartement yi ñan ñoo koy loué. waaw ak kan la ñuy autoriser pour ñu luye ko ko. Mm-hmm. oto yi tamit ñuy oto yi ñuy luye voiture oto yi. Mm-hmm. ñu xool kan la ñuy luye xale yi rek ñooy def sok mm-hmm. xale bi day ñëw bëgg a luye oto jaarale ko sa tur ñu jox ko oto bi moom mu dawal ko def si sok appartement yi maître yi nekk ci école yi léeg bu ñu dàqee élèves yi dix élèves boo leen dàqee ñooy cotiser luye appartement yendu fa. en tout cas daal xale yi daal yarin bi. moom moo jaaratul yoon. moo tax lii di am di am parce que ñoom Nabou Leye keroog biñ leen di wàccee ci tirbinaal ba dañ leen a jóor wala dañ leen a wàccee benn benn. ah dañ leen wàccee benn benn. Mhm. eh dem leen ne may ñu waay dañ leen wàccee benn benn. Mhm. biñ doon wootante di dem nuñ defoon lañ doon wootante benn benn. Mhm. léegi kenn ci ñoom amul woon xelu. arrêté sa moroom ne la lii duma ko def moo tax ñoom ñu dajale leen waxtaanoon nañ ba juboo sa waay waxal. léegi moo tax dañ leen a wàcce benn benn boo demee sax ni ñu yàlla rangé lañ leen ni ñu wootantee benn benn lañ leen wàccee ci oto bi benn benn. gis nga nit ku ciy wooteeti loo xam ne musiba la ngeen di wootante benn benn. na nga def sa xel ne bis bu ñu lay jàpp dugal la ci oto noonu lañ leen di wàccee waat benn benn. Mm-hmm. yéegalaat leen benn benn dem tëj leen benn benn. Mm-hmm. loo bëgg a mucc si coowam dawal commencement bi laa la wax. Mhm. xale da daan yem palaasu xale mhm. ba pare képp ku nekkati star damay ñaan nga toog sa wetu yaay parce que buñ lay jam da nga naan wuy sama ndayooyu mhm. comme buñ lay jam da nga naan wuy sama nday toogal sa wetu nday. am na wala amul. a pare ñetti façon appartement moo am guy gi ndax xam nga ko. appartement boo xam ne da nga ko jël pour yow. Mhm. yow doo nga fay dugg di génn am na am na ñoo xam ne duñ la yóbbu seen appartement. Mhm. appart ah, beneen appartement bi mooy bi nga jël pour sanjaboot mhm. ak beneen bi mooy bi nga jël pour lu waay bëgg def ñëw def ko fa. boo jëlee appartement lu waay bëgg def ñëw def ko fa. rey nit xañ na fa. guy gi loolu la yor. d' accord dëgg yàlla. d' accord Aïcha Aïcha Aïcha mu ngi noonu Jimbori maa ngi lay jaajëf waaye jëboon nag sa fii bari na yoo de. non xam nga rek caaray azur noonu la maire bi moo liggéeyul caaray azur la jàpp caaray géej maire bi liggéeyul ndox yu taa yi mënoon na ñëw dimbale nit ñi mhm. indi oto tibb ko quoi mais du ko def xam nga waaw du ko def day lambar lambari rek xam lu mu la wax